Wow, ñoom ci auditorial bi in somehow something is changing the decision to resign, or to resign when caught up in the scandal affecting a family member uh, but had his resignation torn down by the president was a sign of adhering to the standard of good uh, practice in public administration. The decision to hand over a uh, diplomatic passport after uh, queries were raised in the public space regarding the uh, issuance of family members who had uh, no connections with public office proved that criticism should not be taken in an indictment uh, but a challenge to provide remedies to what could undermine the integrity of a public officer the standards have been set. Will they be adhered to by, the, by all? The future will tell. The lessons, however, is clear. Integrity matters in public office. Transparency cannot be avoided, and accountability is the only protection that guides a public officer from being vulnerable. Uh, editorial bangi ngi noonu. waaw. lii nag junj la mm-hmm. waaw am dafa mel ni am na li nga xamante ne mu ngi mu ngi sensé comme ni niñ ko waxee euh, ci ci li nga xamante ne mooy ci ci éditorial bi ndax xam nga ne am na euh, ci ci gàttal soo soo si soo si ñi nga xamante ne mooy hmm. jamono anga justice minister to be precise fi mu nekk nii cool yi bari na ñu bari sax ñu ngi wax ne mu am na lu fi xewoon ci famille am taxoon mu resign oon euh, président bi bañ loolu nee na déedéet moom ba léegi def ko wóolu mun naa continuer liggéey bi bii nag tamit gis nañ gannaaw bi li xewee diplomatic passport bi ak kii yooyu euh, ñu bari ñu ngee woote mu mu resign waaye gis nañ ne euh, àndut ak loolu euh, jamono ji ci yooyu nag lañ indi li nga xamante ne auditeurs yi wax ci yenn qualité si ak yenn yi nga xamante ne mooy taxawaay bi ak doxalin kuy liggéey ci place ñi nga xamante ne nit ñi ñoom ñoo ko ñañ ci am baat da nga dafa am noo war a taxawee ak noo war a doxalee foog naa ne euh, ci ci ci ci ci gàttal daal loolu laa ci mën a indi xam naa ne ci ci pour better understand. Mm-hmm. li nga xamante ne mooy éditorial bi. xam naa ne bu amee <laughs> euh, li nga xamante ne mooy Foroyaa newspaper nañ ci gën a xam lu bari ak lu yaatu ci xibaar ndax loola mm-hmm. laaj la ci ne naka la li xewee nan la xewee. lan la war a. soppi. exactement loolu mooy seen euh, kàddu. loola nag euh, ci niko amadu Amadou tënkee ak ñun ñëpp liñ ci mën a jàngee rek mooy ne xew-xew yi am ci wàllu passeport scandale bi ñu tudd ci ki nga xam ne moo nekk justice minister ak kàddu yi ñu dégg mu yëy yàbbi ci àjjuma bi génn ak jamono yële weesu tam ñenn ci jegeñaalem ci mbokk ci deret ba taxoon mu ne day tekki ndombal tànkam. Mm-hmm. lan moo ci juddu woon ba njiitu réew mi bañoon li nga xam ne moom moo nekk bëgg-bëggam ci taxawaay booba soppi ak bërëb bi nga xamee ne nekk na fa te njabootu réew mi yëpp ñoom ñoo tax mu toog fa ak naka lañ war a cëralee li nga xam ne mooy place yooyu noonu ñoom ñu toog fa doon ñi jiitee li nga xam ne mooy bërëb yooyu kon loolu la Foroyaa junj ci li nga xam ne moom moo nekk seen éditorial bi lan moo ciy gis-gis bi ak lan moo ci war a soppeeku loolu lañ taxaw di laajte ñoom waaw loolu la su ko defee uh, mu ngi noonu daal comme ni ñu ko waxee su fekkente ne uh, bu ngeen kan ci uh, gën a xam ci ci li nga xamante ne mooy ci auditorial bi lan lañ ci wax ak yooyu fexe leen daal ngeen ut newspaper am na li nga xamante ne wax nañ ko ci ci ci du bëri pour understand li nga xamante ne mooy auditorial boobu maam jébe